ñu ñëw fas yéene waxtaane bi tuuti ci dund ak Seydi El Hadji Omar ñu leen nuyoo nag sant leen it ci déglu bu rafet bi ngeen déglu ñu ngi fas yéene yéen a ubbi waxtaan di waxtaane jëmm ju ji jëmm ju naqare waxtaane la ndax liñ dund yëpp ci àdduna daanaka dafa nëbbu boppam ba dem kooku nag soo ne da ngay wax ci baatinam daanaka tuuti nga ci mën a wax waxtaan wi nag dañ ko bëgg a dooree ci doomu aadama fi muy dooree ndax nit balaa ñuy nekk li jëfam wala ñu nekk li jaar jaaram war nañu nekk li askanam fa mu sosoo waaw kon nag euh, alaaji taanaka kon donc laaj bi dëkk bi wax ko waxoo ko léegi dañu doon rek nga dugal ñu ci askanu yaa ngi sama El Hadj Omar la. waaw kay. Seydi El Hadj Omar Ndao radiyallahu anhu ay maamam ñu la askanoo Jolof. Saagu waali la yor. Seydi waali. Baani waali. Njawat waali. ñooñu la ñoo gàttaayoon suñu wax naama niru ñëw Jolof fekk fa groupe Jolof bu ñuy wax Birame Jéema Kumba mu dalal leen ñu sant fa dëkk tuddee ko Géenan saagul gaali jël fa jigéen ci jimbi toog am ca jimbi toog mu jur Albourilaa Ndaw mu jur Asta Ndaw ñu may ko sëñ Billi Amadou Afa Dieng mu am ca Kani Dieng may ko sëñ Lamine Dem ca Tànka mu am ci Sidi Lamine Dem Okoreja jur Haysa mu jur Balla Haysa mu jur Mamour Anta Sali mu jur Xaadimu Rasul Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu koroje Lamin Dem mu jur ndeke koroje Mbàkke mu jur te si dem bu mun a si mu jur maam Usmaan mu jur Seydi Alaaji Maalik nafaana Allaahu bi barakatihi Taajul Waali gàddaaya Jolof ñëw Saalum fekk fi buur kënoon bu ñu wax Mbeegaan Nduur Mbeegaan ne leen dama leen bëgg a dalal waxtaan ak yéen ñu ànd def kay xas ci ndombo yeeg ñaar yi ci Saalum ñu leen bañee mi ndax ndaa yi nangu ñu ànd xare ba ñu xare ba di séddoo mi ndaw ko ndaa yi ne bee leen gënil ndax bee ëpp àll te ay rëbb ay sàmm lañ ñu jox leen ñu dogal leen ca penku ba kabin sandukumaan ñu seen a pays Taañambaar Saadu Waali dem Pakala loolu ba soxna suñuy wax Tàkko Cissé doomi Sëriñ Pagala am ca Ngoy Tàkko ak àllarba Tàkko Ngoy Tàkko moo jëg bëlëb dal mañ ko jànq mu jëg ba Saalum Ndeena Njaay mbëroon gellawar ba mu jut Lat Joor Ndaw mu jut Sëriñ Ndaw Kotu Njàmb mu jut Saba Seen Jaara mu jut xaan ci Njéeme mu jut xaal daawa mu jut Seydi Alaaji Omar Ndaw ñu ngi mi nga xam ne noonu la Seydi Alaaji Omar Ndaw ak ko noonu ko Jolof ak ñu ñëwee xannam askano dënd ko maan euh, jërëjëf euh, El Hadji kàddu euh, yi waxee nag cosaanu góor gi tedd boobu di yaa raxma El Hadji Omar Ndao bu gën laaj nag kan la gane àddina ak ban jamono foofu ci ndukumaan baayam Tafsir Ali Daawo moo gàddaaye woon dëkk bu ñuy wax tooben ca dëkkumaan ànd ak yaayam daaw a toog ñëw fii ci dëkk bu ñuy wax ndaama góor gu ñuy wax te ci sàmbaraki pendas moo leen dalal fekk na yoone yooye jamaano maam Ali daawo mi ngi di ndaw te ci sàmbaraki pend moomu moo jër maam Ali yar ko def ko doom ji mu jëral boppam moo ko jàngal alquran atabarakallaahu mu mokkal alquran ci yoonamu njëkk docteur Ali Daawo wëlbatiku def daaru fakater ci sëriñ Moussa Paate mu tafsiral ko alquran mu dellu si ndaama di jaamu yàlla di jàng alquran ba magi ndaama yëpp dooloo ko ko def ko ilimaani ndaama te booba docteur Ali Daawo jotagul a denc soxna ba mu ci nekkee ba xelam nekk ci jàpp wird salaatu saati mu dem saare fekk ko Cheikh Omar Foutiyou bu ñuy wax Cheikh Ahmad Tall moo ko may wut salaatu saati may ko ñaari muqaddam mu dellu ci ndaama di jaamu yàlla di jàng alquran di wut salaatu saati bi mu toogee nekk ci denc góor gu wax Ndiogu Ndiaye moo ko njëkk jox doomam mu am te Mouhamad Sène ak Aminata Sène ak Serigne Babou Sène te seulement da ko def kuréel ca Ngambi moom it kilifa la ko xam ne kii ku yàlla mayoon baatil la yàlla wan na ko ci tafsir ali daawo ay mbir mu ne dana jël doomu soxna Aysatu Njaay may ko mboolem mbokk yi nga xam ne nag ñooy jegewaaleem ne ko loolu nag tafsir ali waroo ko def ndax li day xamal mooy Aysatu Njaay mii pattut laajiwut te doomu juddu te kii nga ko nar a may ak doxandeem la mu na bi bii kenn xamul fu mu bàyyee ko xamula it askan wu kon waroo ko fa may góor gi tontu leen ne leen man de li ma ji ci doxal leen bii su leen ko yàlla wanoon yu ni da ngeen def ni man danaa ko may de booba la def docteur Malick Fadakura jël soxna Aïssatou Ndiaye yaay Seydi Alaaji Omar may ko docteur Ali mu taaloog moom su góor mu tuddee ko Osman mu teg ca ku jigéen mu tuddee ko Xadijatu mu ubbi Xadijatu fere nag lëëm bu jëmm ji ñuy waxtaan ak kuy daalaa jooma ndaw wax nañ ne biir ëmb boobule soxna si na ko ci ay kéemaan ak i ak i ak i mbir ndax wax na ne jamaano ju mu biir bi ko mbee jamaano ju mu tëddee dana gis ay ay mboolo mu xam ne mi dañ koy kenn ku ci nekk yaa ngi yore yooyu weex dor te dañ ko weer mel ni dañuy sàpp di julli loolu le moom laay nekkee ba salaatu mi na naw mi dootu gis mbooloo mi loolu mu nekk ko biir gannaaw bi gisatul mbooloo mi muy gis mooy li mu bu toogee ba weer bi nga xam ne la ko mbooloo moomu daan ñëwal li mu ëmb dana yëg ne génn na ci dem ba jamaano ya xam ne yalam ca la mbooloo daan dem ci salaatu xayru mi ne noom li mu amoon dellu ci waat loolu nag jaaxal ko lool bi mu jaaxalee soxna si bët mu jëlaat gàtt ñëw jox ko si daal daawoo ne ko man dama bëggoon nga ñaanal man ndax man kat su ma ëmb na ma ndax yëg naa ne man daal li ma ëmb yaakaar naa ne bu juddoo du nekk nit nekk ko yim gis ci biir ëmb bi si daal daaw ne ko ah ma nit am na leer bu ma yàlla jagaloon su ma tënkal ndeyjoor lii te bi nga ëmbee ba léegi leer boobu la gisatuma ko kon yaakaar naa ne li nga ëmb lii bu juddoo buy góor adduna yëpp danañ ko xam ndax ñaan yàlla rek mu juddu di góor yàlla dogal mu juddu di góor baayam ne tuddee naa ko Seydina Omar ñaareelu xalifa Rasulullahi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf bi mu toogee ba toll ci dal jàng baayam Tafsir Ali moo ko dalal jàng wax dañ la bàyyam ku fonkoon alquran la ku bëggoon alquran la ba dafa defoon am néeg su doom yi jàngam alquran kese benn bés mu ñëw fekk leen ci néeg ba mere leen lool soowe leen ba génne leen néeg ba tëj ko te di alaajo ñëw ubbil boppam néeg ba jël daa ji doon bindee tuur ko raxas aliwaam ba mu set mu fas yéene ne dina mokkal alquran wax nañ bindu bu mu bind dafa dalal boppam teelu làmmiñ salikal kitab bopp bàqara la dal bind bu mu bind ko ba mu mokk mu mu tëri ko ci kanam baayam ne baayam tafsiral ma noonu la Seydi Alaaji Omar Ndaw jàppoo ba ci mi na dimeti moo tax Seydi Alaaji Omar Ndaw wattu na alquran ci yoona mu njëkk ci yoona mu njëkk ci làmmiñu baayam tafsir ajo daawo mu toll ci boobu ci juróom juróom ñaari bàyyi wëlbati ko dalal ko xam-xam di ko nëbb nag ci biir ndawe bi waaye booba fekk na tas daali taawoo ku yàlla jagale ay dag yu bëri la Seydi Alaaji Omar Ndaw di leen sàmm ci biir taaw googu nag ci ba jàngal ko lépp loo ne lii jàngal na ko ko ni ko ko doon jàngalee mooy su xëyee ewi nagam jël téeram yi def ci mbuus gàddu mbuus di sooy baayam jox ko rendez-vous fu ñuy wax gent Demba Jaaw ci pegg Ndaama ne ko soo sàmmati ba waxtu ku subaab jot na nga wëlbati nag yi fekk ma gent Demba Jaaw ma tëral la bind bi ma lay jàngal nga dellu topp fay nag noonu la jàppoo baayam fu mu sàmmee ba waxtu ku subaab mu wëlbatiku fekk baayam gent Demba Jaaw mu jàngal ko li mu koy jàngal baayam del ci wàcc bi moom mu continuer dem sànni loolu la ne nga xam ne si daal ma ndaw mas na di sàmm ci àll bi ba tase nijaay Ousmane Fatim ci àll bi mu ne ko yow gune foo ko mu ne ko ngaam bi mu ne ko kuy sa kuy sa yaay kuy sa baay ci ngaam bi mu ne ko tafsir Ali Daawa mu ne ko kuy sa yaay mu ne ko soxna Aydu si Njaay mu ne ko soo demee na sa baay tase naa sama nijaay Ousmane Fatim ci àll ba nee na ma wax la ne nga ma jàngaloo te ku di sàmmaloo su dee alaaji ma ndaw ñibbisi te teg gi yim ca ak ca sàmm ko da ko bañ a a wax baayam li ko ni daay bu yokkante te wax baayam it sa bi sa jom jox mu ne bàyyi man de tase naag su ma ni daay Ousmane ba nee na ma la ne nga di ma jàngaloo te ma sàmmloo baayam re ne ko wax na loolu de na naa la di jàngaloo te ma la di sàmmloo waaye doom te taaw gii yu jëma ci sikk de taaw bu xam ne jëlee fu nit gage taata alquran nga gàgganti ko fu nit gage ci masala nga nga gàgganti ko te sa taaw gii ci tere ëllëg ci biir da nga jël ay nit pour seen xol yi xamaleen yàlla ak rasululaay kon yow continué sa caaw rek te daal laa jëmal law noonu la taxoo ci caawa gi ci la ko bàyyam di jàngal lépp lu mu ko ci secret boobu la bi nga xamee ne bàyyam tafsir ali daawo toog na ba yàlla xamal na ko ne saw saw fan jeex na mu dajale doom yi yëpp ne leen dama bëggoon a waxtaane yéen dénk leen ndax man kat yàlla xamal na ma ne suma fan jeex na te kat yàlla xamal na ma ne lépp lu ma ko doon ñaan may na ma ko coomar mii kon nag dama bëgg bu ma fi na ngeen topp ci kawam ko jiital def ko mu ngi seen wasila gune la waaye moo di seen kilifa su leen defee li ma wax du ngeen ko rëcc wala bi nga xamee ne loolu am na bañ ca tege diir bu néew te si aadi daawa sax ñu ko fii dañ ci mu ne fa taxaw fa ne te si aadi daawa te ndaama jóge na fi ci tuut ndaama fees del ak nit dox bu nekk kilifa ba ko ah nit ñaa ngi waaloon ne rek ku ne di wax ne ah xanaa kilifa ko toll de du ñàkk a battale boppam. ku ko taxawee gannaawam ñu naan lu kay ci ñàkk ñu topp ko tàng ko tàng ko wax nañ ne malaan mi nga xam ne moom la jàngee baayam kaamil bu xam ne bii Seydi Alaaji Omar Ndaw moo ko bindool ci doxal boppam jaay ko jël njëgg dem dëkk bu wax këw ca malaan malaan yooyu la bi bàyyam génne jamono moom nañ ko sàngee du ñu toppatoo bàyyam defar ko ba ñëw def ko ci bunti jàkkay ndaama ndaama it nag ndaam Sénégal moom doori laaw nooy loolu moo tax waaw sikki ni kon ñu ñu ne xaram ñu ñu ne xaram wax nañ ne mag sikki dagg mbooloo ma ak xaftaan bu gàtt ba ci tànk yu dëgër ba ci kanam baayam rek mu ne Allahu akbar mbooloo mi yëpp jot kabar ànd ak moom mu jule baayam bi ñu ko robee nag ba ñëw ñu ñu nag tasaaroo ah gune gi de ñeme na ñu ne ji gune ñeme mbooloo mu toll nii ak kilifa yi toll nii ñëw ci dëj bii xale bu toll nii taxaw ci seen kanam ci de ñeme na ñu ko soow ba jenn yaayam bu ndaw mbir mi jaaxal ko moo ko ne ko Omar mu ne ko nit ñaa ngi lay teew ci teew man day mbir bi jaaxal na ma wax ju bëri de mu ne ko sama ndey li ma def dara du ma ci fekk ndax sama bàyyi ma ko tontoon boobu yow dugg néeg bàyyam génne euh, téere bu ñuy wax jawaayul maani te fekk téere ba ba téere bi nga xam ne moom na leen bàyyam dénkoon fa la ko dugaloon mu génne ko wan ko ndeyam ndey si soog a ak mi soog a dal nga xamee ne loolu am na Seydi Alaaji Omar Ndaw taxawu baayam na ko ko baayam sante woon miraas nag yi miraas dàgge ji miraas lépp lu fi góor gi amoon mu daal di laxas nag dal dem jaamal fekk booba bi ko baayam di dénk nee na ko bu ma fi jógee ëllëg ba nga topp te ba sama gannaaw sotti na nga dem jaamal làq ju ba diir nga soog a si soo ëllëgee loo mën a jàngale ak loo mën a wax ñu ne jaamal la doon jàngee mu nekk sa muslaay ci làmmiñu doomu aadama yi bi nga xamee ne loolu am na nag di bàyyam faatoo ba mu toppatoo ko ba miraas ko ba defar li nga xam ne noonu la ko ko bàyyam santaan mu laxas nag dem jaamal ba séenu nag mottali ji dénkaane ba nga xam ne moom la ko ba bàyyam dénkoon te daalaajoo man ndaw wax nañ ne bi muy dem jaamal ñu ngi tolli ci ñaar fukki at ak ñeent ñaar fukki atam ak ñeent la la ko jaamal am fa juróomi xat Seydi Alaaji Omar Ndaw wax na ne su mu juróomi at yi ma def jaamal lépp loo xam ne lii taalibe dana ko def ci daara ngir sàkku xam-xam def naa ko ci daara jaamal lépp loo xam ne lii taalibe dana ko def ngir sàkku barke def naa ko ci daara jaamal mu ne daan naa jàng ci daara ji bugg nañu daw yi may romb ak jigéen ñi may romb di rooti di mokkal bind bi may bind bind bi may jàng ngir njàng mu métti mu ne buñ daan dem àllarba dibéer daan naa liggéey ba nga xam ne taalibe yi mujj gi bu ñuy dal dañ may dañ may dañ may daw ngir liggéey bu métti bi may liggéey wax nañu ci daaray jaamal ci la Seydi Alaaji Omar Ndaw daje taalibe bu mag boobule nga xam ne àdduna yëpp xam nañ ko muy Alaaji Sëriñ Wulu Ture fekk na boobu Alaaji Sëriñ yàlla won na ko jëmm jox am na def na ko jëmm ji de li nga soxla ci yàlla moo la koy jox alaay sëriñ nee na mu jox di wër sëriñ si sëriñ bu mu dégg dem bu xoolee jëmm ja rek du dëppoo jëmm jëm ci sol sëriñ bu mu dem bu xoolee jëmm ja rek du dëppoo jëmm jëm ci sol ba mu ne daal su mu nekk nii daal ay yooyu wen tegal naa wala boo xëy na li ma yàlla wan dama ko yeewoo wala xaq bàcce ko naa dem jaamal takku ci xam-xam ci daara ja te yàllaaji sëriñ bi ñu ñëwee jaamal fa la fekk si yàllaaji ma ndaw ñu bokk nekk ci daara ji rek ñu taalibe ak morom ma ñu takku xam-xam di ànd di dem ci dàq di jàng di di dem àndal ba jibeen ba bés te yàllaaji ma ndaw bëgg ko feeñu te yàllaaji sëriñ dem jàng ca dàq ba ba ñëw te yàllaaji ma ndaw tolloog moom ne ko sëriñ Touré mu ne ko naam mu ne ko naka bind bi mu ne ko a ah, bind baa ngi rek di jafe man de sëriñ ndaw ku bëgg a xam laa waaye xam jafe na ma def te daal man ndaw ree na ko waa jege ma ma toppul la mu ne mu jege ko mu toppul ko bind ba mu mel ni bind ba dañ ko ko sol si saat ci ëllëg sa alaaj mu ñëwee na ko ah ndaw naa ñëw jege la nga defal ma la ma defaloon démb nee na mu toppalaat ko bind ba ba nga ko toppalaat ko bind ba mu mel ni daf ko ba mu ko ñetteelee nag laa lay sëriñ ne waaw moo lii ma lii du kéemaanam yàlla fàttali ko la gisoon mu xool jëmm Seydi Alaaji Omar Ndaw ak jëmm de ko yàlla waroon xarfan bi xarfan mu ne man li ma doon wutal wax nañ ne si daaray jaamal si la Seydi Alaaji Aliou euh, Alaaji si la commencé tarbiyam Alaaji Omar Ndaw booba jaamal dëkk bu jafe ndox la waaye ak fu ko a xamee dana jël satalaam duy ko bam fees mu xaar ba guddi mu ñëw teg ko ci bopp lalu Seydi Alaaji Omar Ndaw boo xamee ne bi Seydi Alaaji Ndaw jog na jël satala ci mu diis mu xam ne lii Alaaji Sëriñ la wax nañ ne Alaaji Sëriñ ñu la ci ku yàlla mayoon wattag la ci daara waaye wattag woowule amatul lenn lu mu ci soxla amatul lenn lu mu bëgg lu may bi Seydi Alaaji Omar Ndaw bëgg Alaaji Sëriñ wu li ne na yàlla mu ne yàlla moo mën a nëbbu man li ma doon wut li ma wanoon may koy wut maa ngi ko doon wut ci sëriñ si mat sa ndeke moom moo ko nëbbu ca taalibe yu ndaw ya ca daara ja Seydi la nekk Seydi Alaaji Ndaw ci daara jaamal wax nañ ne daara jaamal ci la Alaaji Omar Ndaw da ca taalibe bu mag boobule bu ñu Alaaji Omar Dalaame bu say ba sat moom it dafa daje Seydi Alaaji Omar Ndaw ci daara jaamal fekk na booba nag yàlla moom yàlla wërsëgal na ko mu bokk si a jo man doo benn néeg si daara yàlla dogal benn bés alaaji sëriñ Omar Dramé nee na ñu fanaane julli benn semaine fekk si daala jo man doo ngi tëdd ci lal rek mu ne duñ ci laata xëy mi ne naw mi mu dem ci jàkka ja julli ji ñëw baat ko ci bi mu ne ah man daal naa ne daal nit ñi ñoo mën a wax lu ñu xamul xoolal ndaw mi le ñëpp na la te moom muy nelaw bëri bii waaye nit yàlla du mel nii mu ne lii ko wax ci xelam rek Seydou Alaji eh, Omar Ndao Sow moom da ngay jël sa talaam julli ba pare wëlbati ko ne ko tooma ne ko naam mu ne ko waa ji tooma nu ma laay xamal mooy doomu aadama bi li muy gënee morom bi làkk yu ma mayu ko ko def mu ne ko te am na yu xam ne yii rus nañu biddante ci lal de ndax yàlla sedd na leen teraanga ju xam ne jile rus nañu koy faatal wenn wax mu ne ko léeg-léeg bu ñaari rakk yi yonent bi julloon ca baytu muqaddas roo gu xam ne ji yàlla boole na te roo la dootoo jubbanti dootoo faat wax sama roo ya ca boppam ci laa bokk alaaji Omar Dramé sukk ne ko aslam dina wax nañ ne ci biir daara jaamal ci la Seydi Alaaji Omar Ndaw ci la ko te Cheikh Ahmad Tall mi mayoon baayam bi de salaatu faatiha ci daara jaamal la ko fekk ndax booba Thierno Amath Tall moom it yàlla xamal na ko ne toofan jeex na mu ñëw ah, mu ñëw mu ñëw mu ñëw ndaama laaj tey tey alaajo ma ndaw ñu ne ko tey alaajo ma ndaw ma nga taaraay jaamal mu ñëw jaamal ba ñëwee ba ci jaamal ci dëkk bu ñu wax koy naawee foofu la dal yónni ndaw ne boo demee ne ko boo demee ca daara jaamal nga laajtal ma bëgg nga wax Omar Ndaw nga ne ko sa Ahmad Tall moo la soxla ñu ngi ci na ma wuy ba ndaw la ñëwee wax ko ko te daal laa jox ma ndaw ne ko waaw ne ko na ma muñal ba bés yi ñu jàng danaa ñëw wuy si ko. bañ toogee ba jàll xam si yàlla mu ñëw wuy si ko bi ñëwee ca ba Ahmad Taal ne ko man de li ma lay wooyee mooy yàlla dénkoon ma doom te yàlla xamal ne man suma fan jeex na te yàlla dénkoon na ma baatin ak ciru loolu nag laa la bëgg a dénk yow gune nga waaye doy nga ba léegi bés boobu ci la ko def Ahmad Tall tas ci ci Sofia ci jox li jaasal lillah yëkkati ko moom la jëlee woon ci Cheikh Omar jébbal ko ko nee nañ bi nga xamee ne Seydi Alaaji Omar Ndaw dem na jóg na ba génn dëkk ba ba mu demee ba nga xamee ne euh, dem na ba génn dëkk bi mu wëlbatukaat ñëw ñëw ci góor gi na ko man de yi nga ma jox nii dafa diis ak man ndax lii sañ naa ko jëfandikoo mu ne ko yow li la yàlla sañale ëpp na li la ma la jox li la ma la jox joxe wu ma la ko lu la yóbbu ci yàlla yow fi gaa yi rek yegg nga fa li ma la ko joxee mooy ku ko ñoŋal mu ne ko yow lépp loo xam ne lii dana génn ci diggante ñaari suñu seet ci jàng yi ci ay lasraar yëpp dagan na la kon lii maanaam euh, dama la ko joxee rek pour nga sàmm ko wax nañ ne daara jaamal Seydi Alaaji Omar Daw bi ñëwee bi ñëwee daara jaamal fanaan ci daara ji ba asamaan teg ñu ñëw ànd lenn lenn ci taalib yi ñëw jaamal mu ne ko kuwa bàyyi ko mu ne ndaama mu ne ko kuy sa ci ndaama mu ne ko tafsir aali daawo mu ne ko lu doon say mu ne ko dama fi ñëwoon de ngir sàkku sa xam-xam mu ne ko ah béréb bi de bérébu sàkku waaye xam-xam la de waaye nag neexut nee nañ bu Seydi Alaaji Omar Ndaw jógee di dellu ca daara ja maam Alaaji Abdoulaye Cissé dafa jóg di ko xool di ko xool ba mu dugg ja mu ne xëy Ablaye Ablaye Cissé taalibe Ablaye Sëriñ la ci ci Ndóor ci Ndóor ci taalibe ci Ndóor Sëriñ la xorma bi nga xam ne moom la Seydi Alaaji Omar Ndaw di di làq fi jaamal yàlla wan na ko maam Alaaji Abdoulaye ci takku ba gis ko bu yàgg Seydi ne am na daara jaamal juróomi at wax na ne juróomi at ñu man jaamal am na seen noor bu xam ne bii ma nga noori fu ñu wax caaxamaa te sëñ baabu soxna bari mu jàngal ko soraawu sut mu dellu ci jaamal mot li juróomi atam wax nañ ne it bi nga xamee ne Seydi Alaaji Omar nawet bi mu njëkk nawet jaamal te loolu ba la borom jaamal nelaw mille neuf cent vingt cinq ñu ci Baye Alaaji Ismaïla Ka ak Baye Alaaji Aliou Fatou ñoo ko fa doon jàngal bi nga xamee ne loolu am na Seydi Alaaji Omar Ndaw nekk fa juróom juróomi mu ngi sàmm dénkaane bi nga xam ne moom la ko bàyyam joxoon bi juróomi at yi bi juróomi at yi matee mu ñibbi si kër Ngambi kër maamam Maale Kojo Kuro mi nga xam ne moo jur yaayam am na Ngambi juróomi at yàlla dogal booba Ngambi di dëkk bu xam ne bii dëkk bu xumb la dëkk bu mag la ndax toll na si juróom-ñaari penc penc yooyu penc mu ca am xew dañuy fanaan tëgg ko foofu ba samante te booba tey daal laa jox ma ndaw. xëy na lan war a ngi taw ci kawam bu def ca xasee ko loolu waxtaan ak ñoom mën a dund ak ñoom wax nañ ne sëñ ne leen dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci seen mbokk mi la sëñ Omar Ndaw mi la sëñ Omar Ndaw mi la xam na xeen bu ko yàlla xeen na ngeen ko nekk ak àllaaxira su ngeen ko yaatalu dana ko xenoo jaar xenee ko di ko feneen te bu boobaa da ngeen ko jëfi te moo di seen te moo di seen bopp yàlla dogal jëfuñ ko bii moo koy fàttal boppam lal fa bëgg te mooy jaamu jaamu yàlla ak jàng ak jàngale ak ko foofu laay la dogu ne dana sanc dëkk boppam mu ne dawel itam ñu ngi na ndawel ñu ngi tënk ñu ngi na ndawel mille neuf cent trente quatre ba mu ba fa amee fukki at ci ñu dina ndawel la taalif téeréem bu rëy bi ñu wax wax bu Quraan wax nañ ne ci ñu dina ndawel su la jotee maqaama Qurbaani ko Kubaa am na ñu dina ndawel fukki at ak ñaar bàyyee ko tënk dëkkam bi ñu salam Daaru Salaam ñu ko tënk mille neuf bu sa amee ñetti at la dem Makka ñu ngi dem Makka mille neuf cent quarante neuf ñaar fukki ci xol bu bu ñu wax ci ñu ngi ci bu ñu wax ci mu ngi jóge ci jumaay Daaru Salaam ci mille neuf cent cinquante neuf cinq février mille neuf cent cinquante neuf fi la rëdd jumaay Daaru Salaam tombe fukki fan ak juróom juróom-ñeent ci Ramadan Seydi Alaaji Omar am na Daaru Salaam fanweeri at ak benn ci boromam Seydi Alaaji Omar Ndaw ñu ngi faatu guddi aljuma onze avril mille neuf cent soixante-dix-sept du fan ak juróom-ñaar ci Rabiul Awal juróom-ñeent ci Rabiul Awal ñu ngi yor yoru ajjuma ci ñaar fan ci Rabiul Awal